muy génn di tàggatoog euh, mbokk yi pour fas ne dem nag mu ngi noonu يشق كثيرا على أهل كنعان أن يغادرهم dina bis ci waa Kanaan seen yonent bàyyi leen fi dem لولا أنك تذهب للقاء ابنك budul woon sa doom gi nga xam ne dafay dafay jóge woon mu Yuusuf أننا كنا سنحول دون budul woon daje gi nga daje moom tey danañu <laughs> fexe ba doo dem ونحن يعز علينا أن نغادر كنعان ونفارق ñun tamit dana dis ci loolu ñu bàyyi Kanaan ak seen dëkk bi daal di dem لكن هذه مشيئة loolu nag cooba rek nituk yàlla gi la ولا مفر من إنفاذها loolu ndigalu yàlla la ñi nekk ci dëkku Firawna yi ñoom dañoo manqué tawxiid muy wéetal yàlla te Yuusuf dafa bëgg a jottali yonent yonent ak baayam ga maamam ga ngir ñëpp waa Misra nekk ay jaamu yàlla loolu mooy jub ñun duñ ñu ngi ñaan yonent yàlla bu ñu fàtte ba mukk <laughs> yal na yàlla aar leen yal na yàlla wattu leen kon ila liqa yonent yàlla bi ñu ngi lay tàggu fi riaayati la tansana ya nabi yonent yàlla bu ñu fàtte fi amanillah dana yàlla aar leen ma salama fi riaayatillah wadaan ñu ngi ñaan yàlla mu aar leen ñu ngi leen di tàgg fi amanillah Seydina Yankuba a ngi noonu nag ànd ak njaboot gi di dem parce que ne jublu fële fa nga xam ne moo di Misra mbokk yi nag tey du ngeen di ngeen ànd ak ñun incha allah ci lako ko ci aaya samaniya wa tisuun soo mooy aaya quatre vingt dix huit ba fi nga xam ne fala xissa ba jeexee waaye bàyyi jaa ngi noonu ngeen gis ko muy jooy ndeysaan ngeen ay kéemtaan yu bëri bëri feeñ na ci saar wi kon saar wi nettali ba ma nga tàmbalee ca bopp saar wa muy aaya bu njëkk ba ba ci aaya téeméer ak ñeent lay ñaan allahumma qad aznaba abnaa'i laqad gharrahum yàlla sama doomi seytaane war na leen ana tajawastu an haqqi maa ngi lay ñaan sama àq ci ñoom nga baal leen ko man baal naa leen as'aluka an tatajawaz maa ngi lay ñaan comme que baal naa leen nga baal leen anta tara yow yàlla kayfa annahum yajhaduuna lit-ta'wiid amma salafa min ma'aasi gis nga ni ñoom rëccu nañ ci la ñu weesu woon ci ay bàkkaar kon seenu toroxlu ak seenu bàkkaar yàlla nga leen ko jéggal ci jamono jii may wax ak yow ñu ngi noon di ñaanal nag ndeysaan njaboot gi. innahumul munkasiruun ñoom seen xol yi daa tojoon. walaw anna al-ahda tala bihim hatta donte kóllëre gi yàgg nag ñoom ba ñu dellusiwaat. innahum naadimuuna. yàlla ñoom rëccu nañu ca jàq nañu. walaw annahum abtau fi bu doon gaaw nañoo tuub nag yow yàlla. لأنهم يطمعون في أن ينالهم شيء من بحر عفوك maa ngi lay ñaan ñoom ñi ngi yaakaar ci sa géejug njëggal allahumma tajaawaz yàlla maa ngi lay ñaan nga baal leen tey ndeysaan xam nga waxoon nañ ko ni ko qaalu yaa abana astaghfir lana zunubana inna kunna xaatiin bàyyi ñaanal yàlla mu jéggal ñu ñun ñoo tooñ ñu noonu dinañ jéggalul yàlla وهل يقدر الوالد على ألا يغفر est-ce que baay mën naa bañ a jéggal doomam baay lu mu yàgg yàgg mën naa baale لطالما كانت نيتي أن أصفح عنكم وأستغفر bëggoon naa leen a jéggal bëgg naa leen jéggul seen borom doon bu yàgg لكنني خشيت أن يرد الله waaye damay ñaan sinu googu laa ragaloon yàlla delloowaat ma ko ولفداحة معصيتكم yàlla sukkandiku seen i mooy ba du leen jéggal looloo taxoon baaluwuma leen sàkkumoon yàlla mu baal leen انتظرت حتى وقت السحر <laughs> <laughs> nee na bàyyi leen xel bu ñu jël di waaj a jot balaa fajar heure boobu heure nangu ñaan la ngeen ñaan yàlla mu jéggal leen. كنت أعلم أن الله تعالى لن يردني خائبا إذا ما دعوته في ساعة képp koo xam ni yaakaaram tasoon na bu tàllale yàlla ay loxo heure boobu yàlla ñaane yàlla yàlla nangu na ko gis ngeen seen naa Yaaqub dugal na foofu heure nangu ñaan mooy sulusu layl al axiir li ko daggee cinq heures du matin jëm kaw mu ni heure boobu suñu borom day nangu ñaan. kon comme que man ñaan na yàlla pour mu jéggal leen yéen tamit na ngeen góorgóorlu heure boobu ngeen ñaan yàlla mu jéggal leen seeni i bàkkaar ngeen bàyyi xel ni ñoom ñëpp ci silsilatul anbiya lañ bokk mooy yonent ci yàlla yi waaye gis ngeen <clears throat> heure boobu mbokk yi ñu bàyyi ko xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxeeti na waaye wax ni euh, sulusu layl al axir suñu xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba daanaka la ko doggee quatre heures jëm kaw jëm six heures nee na heure boobu suñ borom day wàcc ci asamaan bu njëkk bi asamaan bii ngeen jàkkaar lool naan sama jaam yi ku may ñaan ma may la ku may jéggalu ma jéggal la ku may sàkku ndimbal ma dimbali la suñ borom mooy wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bis bu nekk la koy def nag bis bu nekk la koy def ah, kon mbokk yi ñu bay xel loolu quatre heures fu mu jotee wala cinq heures jëm kaw ñu góor góorgóorlu donte bu ñu mënee jug nag yeesal njàpp julli ay rakk jéggalu yàlla ñaan ko suñuy aajo moo gën bu dee mënoo ko tamit boo tàyyeelee nga daal di tëdd fi nga tëdd sablal rek euh, muri mbalaan mi ndank jàkkaarloog sa borom jokk sa xol ci moom yeesal sa yéene ñaan ko say aajo ndaxte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure boobu heure nangu ñaan la ndaxte yàlla day wàcc asamaan bii ngeen di jot asamaan bu njëkk bi naan ana sama jaami ku may jéggalu ma baal ku may baalu ma baal la ku may jéggalu ma jéggal la ku may sàkku ndimbal ma dimbali la kon tamit ñu bàyyi ko xel kon film bi daanaka li ci ëpp dafa ñëw indi ay ñaan yoo xam ni ah ci yeneen bi la jóge nee na agsi nañ fee mooy dëkk bi ñuy wax Misra mbokk yi ñu góorgóorlu ci ñaan bu baax ñu góorgóorlu ci ñaan xam ngeen Yusuf bi mu nekkee xale gis ngeen góor gam ñaanaloon ay ñaan yoo xam ni bu defee am na téere bu ñuy wax xisnul muslim Hisnul Muslim la tudd ñu jël tur wi dinañ ko wax ci français citadelle musulman citadelle musulman ñu koy wax ci arab Hisnul Muslim téere la boo xam ne la ci ñëw ci ñaan bari na lool ak ay zikkar yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko doon def digaloon ko sahaaba yi place bu nekk daanaka la nga fa war a ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugal na ko foofu ak yeneen téere yu bëree bëri ala kulli xaal ku ci bëgg am ak yaatal nga dem ci laaj ci borom xam-xam yi taxaw leen taxaw leen yéenay ñan fu ngeen jóge fan ngeen jëm kii mooy suñu sama baay Yaaqub di doomu Isxaaq di doomu Ibrahim ñun ay doomam lañ ñi ay sëtam lañ ñu ngi bàyyi ko Kanaan suñu jubluwaay mooy dem Memphis ngir jàkkaarloog kilifa ak Misra lan moo tax ngeen di bëgg a dajeeg moom lan ngeen bëgg ci moom ñun ci ñun ci jege ñaale yi kilifa gi lañ kilifa Misra dañoo bëgg a giseeg moom góor gi ci ginnaaw ngeen di gis mooy bàyyi Yusuf allahu akbar ah ma ngay xooli kilifaamee nag waxtaan ak ñoom ndax dinañ am ndigal ci dugg wala déet lu xew kon man kay xaw ma waaye fii daanañ fi dugg nu gën a yombe dañ daan ñëw rek dugg mu yomb lool waaye nañ noppi rek am nañ xaar rek amaana danañ xam li xew mbokk ñu bàyyi xel ñii di ñëw yan yan ndaw lañ daa mel ni ay ndaw lañ. yéen da ngeen wax ne ci jigéen ñaale Yuusuf mu màgg ba ngeen. man Yuusuf moo ma yónni man maa Yaquub bàyyi Yuusuf ñii ay mbokkam lañ ay mbokkam yëpp jigéen ñaaleem yëpp a ngi nii. Yuusuf moo ma digal saa yu ngeen ñëwee ma wax kooku ni gën a gaawee. waaw kon ba ci kanam tuuti. nuyul ma sama doom. nuyoo ba far àggul ma ngoog kon ñooñu Youssouf moo leen yabaloon ni leen dem leen ca commencement dëkk ba nee na ko ñaata fan ñaata ñaata euh, jamono moo des pour ñu àgg mu ne ko ah juróom-benni fan mu ne juróom-benn fan mu mun ma kaa muñ. waaye ñetti fan la ko lañ koy dox ñeenti fan waaye soreetul de ayoon nañ leen départ kon gis nga nee nañ bàyyi ji laaj na leen fii ak ñi àgg ci Youssouf. ab diir bi nu muy toll mun ko juróom-benn fan lañ ko war a dox pour àgg mu juróom-benn fan est-ce mën naa koo muñ ba dajeeg sama doom ji est-ce mën naa ko muñ waaye gis ngeen leen noonu ndeysaan ñu ngi noonu di dem kon mbokk yi ñu bàyyi xel liñ leen waxoon ci wàllu ñaan yonent bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ni uduuni astajib lakum astajib lakum inna alladina yastakbiruuna an ibadati sayadxuluuna jahannama daaxirin yàlla nee na ñaan leen ma ma may leen yàlla suñ borom subhanahu wa taala mbokk yi li mu am du jeex euh, suñ sëriñ ba oustaz Ibrahima Sarr dana ko yàlla dugal aljanna daraan wax ni yàlla dafa duy asamaan ak suuf ay magasin duy xelum doomu aadama ci ay soxla soxla yooyu la bëgg moom yàlla doomu aadama bi gaaral ko gaaral ko ko so gaaral ko yàlla ay soxlaam yàlla daal di koy jox loolu nga xam ni mooy xéewal lim ko denceel ci asamaan ak suuf wa fi samay risqukum wa ma tuwaadun yàlla mu ni asamaan li ngeen war a dund yëpp ma nga ca te mooy ndox mi wàcc di taw muy ay xéewal ah, kooku bokk na ci bind yi nga xam ne Cheikh Ibrahima Sarr Cheikh Ibrahima Sarr yàlla na koy dugal aljana bokk na ci dars yooyu mu joxe mu ni kon góorgóorlu leen ci ñaan ndaxte doom yàlla lim yor jaam yi rek ñoo ko moom Seydina Yaqub gis ngeen heure bi joxe ñaan mooy sulsul layl ala xiir suñ sëriñ Oustaz Alioune Guèye daan na wax nii nañ koy sàkk nañ koy ñaanal ci heure boobu ndaxte heure boobu heure nangu ñaan la kon mbokk yi ñu góorgóorlu 3 heures lu ci tegu wala 4 heures jëm jëm fajar ñuy góorgóorlu ci ñaan lu xew loo bëgg maa ngi jóge ca buntu dëkk dëkk ba ah, xibaar bu am solo laa andil yu zarsiif àndal ak man ah daa mel nii ak si na nag pour wax nag ni ko ay mbokkam yeeg si nañu sawfa yantahi alqahtu léegi léegi bekkoor bi jeex coobere yàlla asamaan si dina wàcc ab taw mbay kii bi tamit gàncax gi dana dana naataat ki jógee ca buntu ba mi ngi ñaan ndigal pour dugg si Yusuf am na lu mu allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mbokk yi dañu bëri luñ julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu mbir yu bëri dañ ci defaroo cay ndeysaan assalaamu ala malik misra ala al maqam axnatun buuru misra muy axnatun عزيز مصر جناب يوسف سيف العظيم أحيطكم علما أنه منذ ستة أيام دخل أبوكم وأخوتكم أي مبكم أكبايم دوغسين انت دكي بدي جروم بين فان أقارب كان هذا نبأ لدي خبر بك بوني بكلا كم يوم نعرف فان لن يورا دي قراتي لا شك أنهم لن يتمكنوا من السير mënuñoo dox dox bu gaaw وليسوا ركبانا ndaxte ñu ci bëri dañuy dox mënuñoo ak ak bu gën a gaaw waaye ñu bëri dañuy dox moo tax شكرا لك kaana xabaran sa ne ko xibaar bu bégte la laqad afrax ne ko daal feeg ñetti fan mën nañoo agsi laka an tadhab man ngaa dellu kon sooy ndeysaan ah dañoo war a barkeelal Youssouf dajeeg im nar a dajeeg baayam ak ay mbokkam yeeg ñett diirub ay fanweer lu ëpp fanweeri at tey mu war a gis ak ñoom maa ngi ñaan maa ngi sant yàlla ci ci yërmandeem ñu ngi barkeelal yonentu yàlla bi ñu ngi kontaan di ànd ak yow sa mbég amaana léegi rek mbékoor bi daal di jeex ci barke barke bi yonent bi ñëw mu yonent yàlla Yaaqub bu ma amee ndigal daal damaa bëgg a dem teeru ji saa baay ak samay mbokk mun ko demal allahu akbar caay ndeysaan mbokk yi bàyyi ji ñeent fukki at mu nekk ci ay jafe-jafe malaaka bi doog koo feeñu ni ko sa njàqare jeex na tey kon mu gi yàgg na horin hop amaana Yuusuf ni mu war a teeroo ay mbokkam du ko man ndaxte moom bëggul àdduna du du sol yére yu baax du sol yére rafet léegi dem leen ngeen taaral dëkk bi waxal ñi ñépp nañu génn teeru gan yu tedd yooyu kon taaralal dëkk bi ndaxte damay xalaat Yuusuf ni mu war a teeroo baayam ci wàllu solo du ko def ndax dafa dëddu àdduna Zaxruut Zaxruut kaay digal leen ñu taaral dëkk bi nañu na armée bi yëpp génn soldaar yi nañ génn ngir mën a teeru gan yu tedd yooyu koo koy xorin xoog ndeysaan la Potifar yoroon moom lañ ko dénk léegi ñoom ñëpp tey ay jullit lañ gis nga ni Yuusuf mbokk daawam yàkkamtiwu ci dara ah, waaraate bi muy waaraate jëme nit ñi ci yàlla ñu bàyyi xel ne daawam mooy métier bi gën a rëy ci àdduna ku nekk na nga ñaan yàlla nga nekk daa ay nekk waaraatekat nekk kat ci yàlla donte ñëpp mënuñoo nekk ay kat waaye ku ci nekk rek ah, même boo dul mën a wax tamit nga fexe di ci dugal sa loxo làmb sa pos di ci dugal ci diine ji ngir diina avancé ndaxte ku ci nekk cër bala yàlla sedd am na ñoo xam dañuy jàngale fa lawla nafara min kulli firqa minhum taifa li yatafaqahu fi diin wala yundiru wala yundiru qawmahum ida rajaahu ilayhim laallahum yaxdaruun yàlla mënu lu teewoon ah, mbooloo mu nekk génn kuréel génn ci dem jàngi suñ jàngee ba ñëw jàngal seenu xeet euh, leeral leen li nga xam ne mooy diine ndax ñu mën a dellusiwaat ci yàlla suñ borom subhaanahu wa taala kon ci wàllu diine wàllu xam-xam du ñëpp a mën a dem di ko tasaare waaye ku ci nekk tamit ki mënta tasaare xam-xam cim njàngam mën na fexe ba diine nu mu avancé wala xam-xam nu mu avancé mu dugal ci alalam wala mu dugal ci ay ñaanam ku ci nekk li nga mën rek pour diine avancé ndaxte saxaaba yi noonu lañu bare woon ay façon yu bare bari yonente bi ku ci nekk yoroon na ko ci ñoom am na koo xam ne xeex man am na koo xam ni ah, ah, mën naa jàngale mën naa a mën naa jàngale mën naa jàngal ay nit ku ci nekk na nga ko mëne Yaaqub yonente bi ak njabootam ñi ngi dugg si ah mbokk yi yoo Yuusuf yëpp danañ dugg si si dëkk bi ñi ñi bëgg Yuusuf ñoo ñu bëgg ñun ñoo lañ bëgg kon dañ leen war a teeru tàggal leen. لقد مضى على فراقهم 40 سنة تقصد أن جناب يوزرسيف لم يلقى أمامه منذ 40 سنة هذا ما سمعته أخبروا الجميع فعلينا أن نشارك في استقبالهم علينا أن نبرهن لهم أن أهل مصر يقدرون تضحيات يوزرسيف الله أكبر كتنا كلو أمرك moom lay wax ni nañ ko andi ñu dem teeru ji baay ji ñu dem teeru ji jotaay boobu nga xam ni mooy jotaay bu mujj ba nga xam ni kon ku nekk génn la nga am nga daal di koy def ci taar def ko ki loo xam ni teraanga la loo xam ni danañ ko mën a teeroo kilifa gu tedd googu di ñëw mu yent yàlla yaqub uh, ibnu ishaq ibnu ibrahima alayhi salaam يبدو أنها أبنية شيدتها أيدي daa mel ni ay nit a ko tabax de ah, waaw waaw فتلك أبنية ثلاثة yu rëy تم تشييدها على قبور ثلاثة من ñetti pharaon yu mag yi lañ ko tabaxaloon. وهي من أعظم ما تم بناؤه. ñii moo gën a rëy ci pyramide yi ci àdduna bi pyramide yi gën a mag ci àdduna bi moom la mu nekk Égypte donc moom lañ tuddee woon Égypte lañ tuddee woon berceau de l'humanité c'est-à-dire almahdul insaniya euh, muy wàccuwaayu doomu aadama akum nite ndaxte ci ñi njëkk a yeewu am avancement ci àdduna bi ci lañ bok firaay na ci lañ nekkoon yonent yàlla Moussa fii la labale woon euh, yonent euh, kooku jëmm joo ñuy wax euh, firawna allahim foofu la ko labale woon ca baxru xalduum ngir fetterlu gum fetterlu woon weddi tawxiid weddi wéetal yàlla kon Égypte yàgg na am histoire waaye lii nag moo jiitu yonent yàlla Moussa ndaxte laay wow ñu leen waxoon mooy maam ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam kon mbokk yi ñu bàyyi xel loolu léegi nag. hal haadihi madinatu Yuusuf mooy dëkk Yuusuf waaw waaw bàyyi booy. wa la fii mooy Tiiba. والغبار الثائر إنما هو من ازدحام الناس boo gisee poussière bi di jug nii. إنهم يأتون pënd bi jug nii mooy nit ñi ñooy ñëw pour teeruñu. لكن هذا ليس waaye kenn Yuusuf. kii mooy Rudamun. الضابط الحارس ليوسف. moom mooy garde mbokk yi taxaw leen gis ngeen ni nit ñi ñëwee ndeysaan ñëpp leen di teeru ak di leen tatagal ndaxte kilifa gu tedd la bi Yaqub bàyyu Yusar Siif nga xam ne mooy kilifa ak Misra oh, Yuusuf ngeen ci jublu na jàmm wàcc ci yéen yéen ñëpp kilifa ak ñi ngi ñëw ngir teew leen ñi ngi ñaan ci sa kilifteef nga yéeg fu gën a kawe ndax nit ñi man laa teeru man laa tatagal ñi ngi ñaan kon nan lañ war a def نطلب منكم أن تقفوا على ذلك المرتفع ريثما يتم وصول حضرة يوسف ومع المرافقين ndaxte yow waroo nekk fu suufee da nga war a nekk fu kawe ndeysaan cey allahu akbar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ma ngoog de loolu da ngeen gis ci kanam lan lay firi waaye Seydina Yaaqub gis ngeen fañ ko taxawle woon nekk na fa nag léegi nga mbokk yi li ñu mobilisé waa dëkk bépp lañ mobilisé euh, soñu ñëpp na ñëpp génn ngir teeru yonent yàlla bi waaye ngir teeru baay ngir teeru baay. ba tey daal asamaan si musta am niir yi ay at yi nii niir yi amul. daa mel sa xol bu kii bi moom moo tax ndëkk mi feeñ de. nee na ko niir yi niir yi asamaan si ànd ak taw bi dañuy ànd ak man ci sama mbégte ñépp dañ lay gunge tey fi mu nekk nii allahu akbar nee na asamaan saa ngi noonu commencé dajale aw niir ah, ñoom ñëpp ñuy ànd ak man ci mbégte mi nga xam ne moom laa nar a am tey ñuy ànd ak man kii li nga xam ni mooy ah, daje gi ma war a daje sama doom ndaxte ñaari wilaya ñoo fi daje wilayatu yusuf alayhi salaam ak wilayatu yaqub nee na est ce que du kee war fas yu di moom est moom la déedéet nee na kii kenn du ci Youssouf ñi ñëpp léegi rek mu ñëw bàyyi booy léegi mu ñëw allahu akbar ndeysaan kuy ku mu gis rek yaakaar ni yow la wasalu tanaxaw janib nee na ko taxawee leen côté daa mel ni gars yi ak si nañ mbokk yi kilifa ñii lañ ko war a teeloo nga Yuusuf cër bi mu jox baayam cër bi ko réew mi jox moo taxit am na cër bu réy ca yàlla waaye wuuteeg magam yi lool ñi nga xam ni ñun fukki at ñuy sonal seen baay kii tey ci benn fan dong benn fan mu fas yéene cee teral baayam nga joo xam ni àdduna mos koo am ci benn fan ñi nag ñeent fukki at ñu gàcceel seen baay toroxal seen baay sonal ko moo tax joone mooy bëgg de dee waaye nag ndeysaan ñeent fukki at yi li muy metti metti yàlla yebal malaaka bi nag ni ko tey sa njàqare jeex na ah, tàqalikoo ga day jokkoo dana am ca ginnaaw ba waaye tamit njàqare ga mbégte dana ko roofu ngeen moo tax it lépp lu mu am ak lépp lu mu xam képp ku mu xam rek ah, yëgal nañ la mbir mi ngir nga génn teeru kilifa gu tedd gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon nit dina torox bu fekkee ni dund naag ay baayam baayam ak yaayam ay wayjuram bañ génn àdduna te amul aljanna kon ñu ni ñu ni war a fexe mooy ku ci nekk góorgóorlu ba am aljana ci say wayjur ku ci nekk rek kuy dund ak sa baay yi nga fexe ba am ngërëmam sa yaay tamit noonu bu fekkee sa yaay ak sa baay ñu nga fexe ba sa mag nga am ngërëmam ndax te bi sallallahu alayhi wasallam nee na mag mooy taxaw palaasu baay ginnaaw bu baay génnee àdduna waaye ngeen bàyyi xel tamit ne état bu fekkee kilifa diine day ñëw état gis ngeen respect bi koy jox ndaxte ñaar dafay am kilifa diine moom day yor daanaka jëmmi yàlla ci kaw suuf waaye tamit état day yor jëmmi buur ci kaw suuf yàlla moo séddale noonu àdduna moo tax yonent bi tere kilifa diine bu mu suufee suufeelu ci nituk état nituk politique nituk adduna déedéet ñooñu ñoo leen gën a kawe martaba ci yàlla foofu waaye daa mel ni Seydina Yaa Seydina Yusuf mi ngi noonu di génn ah, ànd ak délégation bu mag bi nag day war a fas yéene teeru ak a tatagal baayam mbokk yi gis ngeen benn fan day ci fas yéene génn ak li mu am ak li sa am yëpp teeru baayam لا يبعد عن هنا am naa soreetuñu fii lu bëree bëri mbokk ñu bàyyi xel ni incha allah di ngeen am ay ustaas yu ngeen àndal ci jotaay bi incha allah bu ñu jeexalee euh, yaakaar naa agsi nañ ci plateau bi léegi danañu bu film bi jeexee rek ñu dalal leen bu ko defee ñu jàngatal ñu Yusuf ba mu fa mu tàmbalee ca Faddaan ba fi ñu toll nan la ñu ko mën a tënkalee ak yan jàngat lañ ci mën a tiire yan leçon lañ ci mën a tiire bu ko defee tamit yéen ñi nga xam ne àndoon ngeen ak yéen ci jotaay bi ak ñun depuis bu yàgg ba léegi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan yàlla suñ borom nag subhaanahu wa taala mu may ñu yeggal ci jàmm waaye tamit di leen déglu ci lan ngeen bëgg nañu seen réseau point net indilaat leen ko incha allah lépp rek pour nit ñi nag gën a jokk ci yàlla rek suñ yàlla dootul dog لا أدري كيف عساه يستطيع أن يحتمل góor gi nan la mën a dékkoo li mënta dékku muñ انظري ألا ترين يديه xoolal ni loxo yi di loxe góor gi mënatul a téye boppam أراك أسوأ حالا منه يا أمي كوني مطمئنة dalal rek yow tamit damay mujj tamit nga li ko li ko li jàpp xolam jàpp la incha allah muñal rek muñal rek dara du leen jot góor gi mënatul a dékku sama xol bi dalal waay sama xol bi dalal sama xol bi muñal muñal yow sama xol tuuti muñal rek وليس اليوم سيكون اللقاء بالذي يسكن له فؤادي tey mooy daje bi nga xam ne sama xol ci lay dale ويسر به قلبي لماذا تخفق yaa ngi yëngatoog doole yow sama xol dalal rek cooy ndeysaan اللهم صل على سيدنا محمد وسلم أين أخوك لماذا لم يأتي lan moo tax ñëwul ba léegi dina ñëw léegi سيأتي cooy ndeysaan اللهم صل على سيدنا محمد وسلم bokk nañu bari lu ñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa gisoo màggaay gi Youssouf am tey fi mu nekk nii waaye Youssouf mbiram àgg nag ci kaw. ba mu nekkee xale ba léegi moom ak màggaay moo feeñ ci moom. ah tey de feeñ na dañ ko doon bañal de am na tey. tey ndeysaan mbokk yi ñu bàyyi xel Youssouf est-ce bi la àndal déedéet ñañ gënoon a teg ñu suufe muy baadoolo yi ak jaam yi ñoom la àndal tey te waxoon ne leen ni waxoon na Potifar ni ko bis dana ñëw jaam yi ak baadoolo yi ñooy mujj mbir mi. borom xam ah, borom alal yeeg ñépp ah, danañ mujj daanu waaye ñu ñàkkoon ñooy mujj nag féetewoo mbir mi léegi waaye daa mel ni seen na bàyyi ji de allahu akbar <laughs> allahu akbar bàyyi ji tamit daa mel ni seen na ko allahu akbar liqaawul ahibba yusufa ngi ne sam ki dalal sama xel yusufa ngi ne la seen dem na gars yi bàyyi nga ko xel sax allahu akbar allahuma salli ala sayyidina muhammad wa sallim kooku tamit wàcc na moom tamit gis nga ko de ndeysaan <laughs> allahu akbar hey allahu akbar kenn mën a tuccatee sa bopp mbokk yi doom ju baax nii lay mel ci jàkkaarloog baayam doom ju baax nii lay mel tekki rek Yuusuf Yuusuf Eu sou moleque. Eu sou ولدي اللهم صل على الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك yaa rabbi laka alhamdu kama yanbagi li jalaali wajhika wa azimi sultaanik allahu akbar Yuusuf allahu akbar allahumma salli ala sayyidina Yuusuf allahumma salli ala sayyidina Muhammad Yuusuf habibi ay Yuusuf sama soppe bi Yuusuf Yuusuf allahu akbar kay kenn du ko téye yaa rabbi Yuusuf Hamdi اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم يوسف اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم يوسف لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تخبرين حال يوسف ويعقوب. يوسف ak baayam fi ñu wallahi inna malaikata samaa'i tadrifu wallahi malaaka yi kaw asamaan ñi ngi mbég ànd ak Yuusuf ci mbégte mi mbégte mi jóge ci bàyyi dem ci doom unduri dumu'a Yuusuf al-muhriqa wa thaghrahu xoolal seen rangooñ yi ànd ak mbégte ànd ak muuñ limaadha asbaha haadha haalan Yuusuf yi la mu jéem bàyyi ji xam na mbokk yi allahu akbar allahu akbar vậy là <laughs> mbokk yi loolu la ñuy wax jamxul xuluub mooy dem ba xol yëpp daje ci benn yëg-yëg nit bu demee ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci wér yi nangu ñaan bu dem bi nit ki demee ba yëg yàlla ba am connexion direct jokkoo boromam digganteem ak boromam dara nekkutu fa àdduna génn na fa lépp génn na fa mu jokkoo direct suñu borom subhaanahu wa taala am mbégte ci yàlla nee na heure boobu buy ñaan muy nangu loolu gis ngeen ko ci xadra boobu gis ngeen ko ci ëtt boobu gis ngeen ko ci jotaay boobu léegi ngeen di ci diggante bàyyi ak doom bàyyi ju bëgg bu ñaanalee doomam rek balam tàkk yal nañu yàlla may loolu yal nañu yàlla may ñu am ngërëmal way jur yi yal nañu yàlla may tamit ñu am ngërëmal mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon euh, Ahmadou Ndak Seck yal na yàlla fay ko lii yëpp bu amee rek ndeysaan jotaay bi am ci réew dëkkam bii euh, yàlla ko ci yàlla fay ba mu bëgg ak njabootam ak képp koo xam ni àndoon nga ak moom ci liggéey bi euh, ba diine ji macha allah luñ ci man mu tasaaroo waaye tamit mag ñu baax ñi fi jaar xam ni la ko dale ci saxaaba ya ndeysaan ba wàcc ridwanullahi alayhim ajmain salafu saalih ñoom ñëpp nga xam ne ay nit yàlla lañu woon dugal seen loxo ci diine pour mu avancer waaye xaasatan yi euh, nga xam ne ñu ngi yëngat ci daawal islamiya pour lii ne tasaaroo yéen yàlla dëgëral ñëpp waaye doj jotaay yu mel ni mbokk yi bu dajee xol yëpp dajee muur la ni amul benn xol bu génn ci yàlla xol yëpp dëgg nañ yàlla jokk na ci yàlla heure boobu heure u ijaaba nangu ñaan ngeen mi ngi noonu agsi na nag ci pale bi ndeysaan baay jaa ngi noonu dugg si na ndeysaan allahu akbar ah falamma daxalu ala yusuf falamma daxalu ala yusufa aawa ilayhi abawayhi wa qaala duxulu misra insha allahu aminin waaw ah ndeysaan mi ngi noonu de ngeen bàyyi ngi noonu di dugg si allahu akbar caay lañ doon xiyal depuis ñeent fukki at tey jii lay doog a feeñ tey jii lay doog a mat moo tax muñ yàgg dañoo wax ne ak sabr moom laysa lahu xudud muñ amul fu muy yem yeneen fi yëpp jaar nañ ci ay jaar-jaar yoo xam ni metti woon na yàgg na lool yonte yàlla Yaaqub daanaka tëdd na feebar lu ëpp fanweeri at demoon na ba dara nekkatul ci wetam waaye soxna sa téye ca moom wetam rek ba yàlla dimbali leen nga boor baa ngi noonu di ko teeru ak a tatagal yàlla na yàlla yàlla na jàmm wàcc ci yonent bi yàlla bi tey ndeysaan ah benn photo yi baa ngi noonu pour baay ji waaye beneen baa ngi nelee pour tante ji ca mooy yaay ji ndaxte moo yaayam ñoo bokk ndey ak baay moom la ko dénkoon moo tax yàlla wax ni falammaa daxala falammaa daxalu ala yusuf bañ duggee ca yusuf nag mu daal di tapp ñaari way juróom ya nag yëkkati leen fu kawe ni leen dugg leen misra ci jàmm ak salaam ndem soob na yàlla ñu dégg ñu déglu déclaration buur bi man kàddu lay jooxal ci mbooloo mi man mi nga xam ni mayor yor mbirum misra maay kilifa gi maa ngi teeroo ka tatagal kilifteefu kilifa gi muy Yaaqub yonent yàlla bi amaana ñëw gi mu ñëw mu nekk aw ak xéewal ci réew mi baarakallahu fiikum نحن نرى في قدومه إلى أرض مصر فألحهم ونرجو أن ينتهي قحط مصر في أسرع ñëw xéewal la waaye tamit ñu ngi ñaan décor bi daal di denc ci ñëwam gu barkeel gi moom yonent yàlla Yaaqub alayhi salaam léegi ñu déglu ñaar ñi wa kunta tadunnu abadan yaakaaroon yaakaaroon nga ni gént gi dana mujj musa am mujj am. wa aswa'u ma fi al-amri annana mujbaruna da'iman nee na li ci gën a li ci gën a naqari mooy li ci gën a kii moom metti mooy ñu ñu ñu force force yu ñu màggal ko nag mën ñu ko bañ a màggal ñoom dañoo feebar waaye ñu xal Youssouf lan lay xalam est-ce que yére yi la war a teeroo baayam nga jokk na de ma nga ca kaw léegi. jëmm jëf nekk waaye roox gi dem na bu yàgg ndaysaan ci xalaat nag laa wax waaw xel maa nga ca kaw di xalaat ndaysaan ah allahu akbar bàyyi soo ma joxee ndigal maa ngi ñaan ma ma génn tuuti dinaa ñëwaat léegi demal waaye na nga gaaw a ñëw de incha allah akbar ñu xool nan la nar a defi alquran lu mu wax dëgg la mbokk yi nañ ko gëm bu baax. kii mooy soxna si ñuy wax Asinaat mooy doomu ki gën a màgg ci ñu wetal yàlla ci dëkk bi mooy soxna Yuzarsif maanaam yonent yàlla Yusuf kii mooy Manasa doomu Yusuf la. kii mooy Afrahim moom tamit mooy doomam bu góor. say sata ngoog. yàlla yaa yaa ngi gis. saaral lana min Youssouf. ah yàlla wërsëgal na Youssouf ay doom de. zahrataani jamilataani ñaari xale yu rafet yu taaru ndeysaan. allahu akbar. inna lakum zawjatan am ngeen beneen doo am ngeen beneen. Zulayxa al-jamiila am ngeen beneen sa doom ji am na beneen soxna mooy Zulayxa. aydan intadarat liqaa Youssouf li sanawaat topp na Youssouf ay at yu bëree bëri. idan anti aydan kunti. yow da ngaa bëggoon Youssouf comme da ngaa bëggoon Youssouf kon ñoo ko bëggee woon. عشق زليخة cofeelu Zuleyxa ci Yuusuf dëkk bépp ko doon waxtaane allahuma salli ala muhammad idan anti aydan aanayt yow kon yow daje nga ak ñaari mbir yi alamul firaaqi saab alaysa kazalik naqaru tàqalikoo ak naqaru cofeel xalaawatul wisaal wal nee na ko mbégte mi nekk ci jokkoo moo lay dindi lépp loo xam ni naqar la woon yan yàlla may la yiw yow sama doom allahu akbar daa mel ni am na koy génn ma ngoog ah mbokk yi jamaal baa ngoog de jamaal la boo xam ni ca suuf ga jalaal moo ca ànd mooy taar bu ànd ak tedd nga ak màggaay allahu akbar gis nañ taar bu ñu mus a gis nag ñëpp a jommi allahu akbar ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن أنت يوسف ولدي yaay sama doom Youssouf. hal tarayna ilayya ma ajmalahu wa ma kenn gënu koo taaru kenn gënu koo rafet. ah kay فيوسف suñ doom jaa suñ doom jaa ngi nii مشرقا مثل الشمس ومنيرا مثل القمر taa leer na ba mel ni jant taaru na ba mel ni weer <laughs> déedéet bu ma sujjootal déedéet kay déedéet ليس لك أن تقدم yow waroo fóon sama loxo فأنت لك الولاية yow yaa yor kilifteef gi ca yàlla tey jii حق علي أنا أن أقبل يدك man maa war a fóon sa loxo waaye waroo fóon sama loxo tey kenn mosu kaa dégg de هذا يوسف sama doom jaa ngi nii Youssouf laqad rajaa axukum Yuusuf seen mbokk mi Youssouf dellu si waat na. Youssouf alladi gaaba anna sanawaat Youssouf nga xam ne ay at. jóge woon na ci ñun. daka alladi ixtaraqa fuaadi kii moo lakkoon sama xol bi ngir tàqalikoo gi ma tàqalikoo ak moom. laqad aada ilayya Youssouf alladi daa. Youssouf ma sànq woon ñëwaat na ci man. laqad aada ilayya. sama doom ja Youssouf dellu si waat na. <laughs> cay ndeysaan mbokk yi at at yu bari la. ñeen fukki at xam ngeen ne du ñaari fan. yaa xabaayi yéen sama soppe yi. taalaw li naxmad Allah ñëw leen ñu sant yàlla subhaanahu wa taala. alhamdulilah nasjuda lahu subhaanahu nañ ko sujootal moom yàlla suñu borom subhaanahu wa taala. shukran ala jam'i shamlina ngir sant ci dajale gi ñu dajalee ñun ñëpp tey ci kanam Yusuf ki nga xam ni mooy dalal sunu xel. cey mbokk yi kii li mu sol rafet na de taaru na lool waaye day dëggal. la ca gént ga ah. kuntu mustaghriqan fi mu ngi nekk fàttaliku la Baye ja waxoon. Baye dama xuusoon ci nelaw gént jant beeg weer wi ñu may sujootal Baye nga daal di may yee ci nelaw. inna ash-shamsa allati kutiba an tasjuda lak. jant ba ñu bindoon pour mu sujootal la. tey ñu ngi nii mbir mi am na tey jii. وكذلك سيسجد بين يديك ذات يوم dina sujootal bés dana ñëw jant beeg weer weeg ak fukki biddiw yeeg benn muy sa mbokk yi dana la sujootal سيكون لك شأن di nga say mbir dana kawe lool وستنال مقاما di nga am place bu kawe kawe ca yàlla suñu borom subhanahu wa taala da nga am bërëb bu kawe mbokk yi ñu xool góor gi di ñëw mooy kan allahu akbar cey borom tank yooyu di ñëw mooy kan di ngeen ko xam bàyyi leen ba mu agsi ah, ma ngoog de moom la yàlla wax ni wa rafaa abawayhi ala al arshi wa qarru lahu sujada wa qaala ya abati hada tawilu ruyaaya min qablu qad jaalaha rabbi haqa wa qad ahsana bi id akhrajani min assijn wa jaa bikum min albadwi min baadi ma nadaga alchaytaanu min baadi an min baadi an nadaga alchaytaanu bayni wa bayna ixwati inna rabbi latifun lima yashaau innahu huwa alalimu alhakim bàyyi jugal cay ndeysaan mbokk yi mi nga kon fukki biddiw lañ ak benn ak jant beeg weer wi ñu ngi noonu su jootal nañ ko moom la yàlla wax ni mu yëkkati ay way juróom ñu daal di rot su jootal ko mu ni yow baay lii mooy lay firi gént ga ma géntoon bu njëkk tey sama borom def na ko muy dëgg sama borom rafetal na ci man ba ma génnee ca kaso ba dégg nga lim ko wax mun ko gis nga ni la jant bi su jootale ak weer wi ko axakee ah gis naa ko baay lii mooy li firi gént ga sama borom dëggal na ko tey أن الله تعالى يستودع صفات جماله وجلاله yàlla day dénk melokaanam yi teddaangaam ak màggaayam ci jaamam yi nga xam ne ñoom la tànn. حري بي أن أقول kon war na ci man moo wax ni إن أولياء الله بما لهم من مقام رفيع عنده bërëb bi ko yàlla dénk صاروا مرآة لكثير من صفات الحق جل وعلا lépp loo xam ne melokaanu dëgg la feeñ na tey وكان نصيب يوسف من هذه الصفات yonent yonent yàlla Yuusuf mi tey melokaan yooyu yàlla jox na ko ko tey dénk na ko ko لست أغالي إذا قلت أن يوسف duma xuut di wax ni dama wax ni Youssouf ci taaru yàlla la bokk waaye mën naa wax ni daal ah Youssouf lépp yàlla Youssouf nee na loolu yëpp nge kéemaanu yàlla la man mën a lu ma sama bopp dara lépp delloo na ko yàlla allahu akbar yàlla rafetal na ci man ba ma génnee ca kaso ba. yàlla jële leen ca kaw ga andi leen ginnaaw bi mu roccee saytaane mi nekkoon suñ diggante sama borom ku ñeewante la ci ku ko soob yàlla ku xam la ku xereñ la yow sama borom jox nga ma ak nguur xam nga xamal nga ma firim gént yaa fent asamaani juróom-ñaar ak suuf yàlla yaay sama kilifa ci àdduna ak àllaaxira tawaffani musliman wal boo may génne àdduna di ma rey yàlla nag ma def ma nekk ab jullit waaye yàlla nag ma yéege ci nit ñu baax ña ba ma àgg seen martaba ya inni ashkuruka yàlla ma ngi lay sant xatamta li yaquba fi firaqi waladihi kama yuhib nga génne Yusuf ci uh, Yaqub ci tàqalikoo gim tàqalikoo doomam ja bi talaatihi lbahiya ci taar bu màgg ba yow yàlla كحل مقل جميع المنتظرين ñi doon xaar ñëpp بالطلعة الغراء yàlla na nga feeñal ci ñoom ca taar bu rafet ba bu taaru ba ba nga xam ni yaa ngi ko tëbbee salaire yu màgg ya koor gi ñëw na ma ngoog فيظهر جمال الحكومة nee na yàlla feeñal na fu sori woon ca suuf sa taar bi gën a màgg nee na ko waa adduna ba tey ñu ngi làmbatu de nee na saalixul mawhuud bu ñëwee ci adduna bi génn nit ñi ci ñàkk akug réer musal leen ci pexey tooñkat yi nee na ko saalixul mawhuud dafa ñëw mun ko waaw nee na ko dana ñëw mooy wàcc ak dal ci xoolu nit ñi kan lay nekk saalixil mawuud mooy kan kañ lay nekk. baada an yatiya nabiyu alxaalis. nee na yonent bi bu mujjee ñëw yonent yàlla Muhammad après ci la waajee ñëw. indaha yati almuxallisu almawuud. kii génn nit ñi ci di leen muccal. dana ñëw ñu koy wax almahdi. yakunu xaakimuha almuxallis almawuud. mooy ki nga xam ne mooy set. wa sayanshuru alqista mooy setal nit ñi mooy andi maandu ci kaw suuf. laa shakka annakum satarawna nabiyya alxaatam walmuxammas sikk sàkk nekkul ni di ngeen gis yonent bu mujj bi. fahal awsaltum ilayhi salaam. soo demee nag ma ko nuyul moom mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi góor gi moo dajewoon euh, moom moo doon xaar Youssouf bañ ko sànnee ca teen ba mun ko xaar naa la fii ñaari junni at di la fi xaar tey bii mooy mujj dajeem bu ma dajeeg Youssouf denk na ko ne ko nag am na yonent buy ñëw sa ci mujjantal yonent yi ñu koy wax yonent yàlla Muhammad waaye ginnaawam almahdi dana ñëw ca ginnaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nag mooy tëj alwilayatul uzma bu màgg gi mooy ki nga xam ni ah, mooy orienté waat nit ñi nag teg leen ci yoonu jub ba ñëpp baax waaye ñu xool ñaar ñi mustaqbal bani israil sawfa yakun nee na ko mujjug doomu israil yi nasibi yahuda am nasibi est-ce que dañuy bokk ci sëtu yusuf ñiy mujj nguur gi ci yusuf la ñu bokk wala ci man nee na ko ci yusuf la de yusuf a koy mujj ay sëtam mun ko déedéet déedéet loolu d'accord ma ci sayara man yati baadana anna bani ñii ñëw danañ gis ne doomu Israël ñëpp. yahudan wala yahud lañ leen di wooyee waaye kenn du la wooyee yusuf yu <laughs> allahu akbar mbokk yi kii tawat na tawat goo xam ni ah, dootul wér moom yahuda ah, moo tax li ma leen doon wax ci yahud yi nga xam ne yàlla nee na ñoo gën a bon ci kaw suuf ñooy gën noonu yéefari ñooy nee noonu ñu gëm yàlla ñi loolu mooy yahud yi ñëw ci yahuda ah, moom lañ jóge Ah, ñu bàyyi ko xel waaye góor gaa ngi noonu di dellu koo koy ar rasulul moo daje woon ak yonent yàlla yusuf ca teen ba bañ ko fa sànnee waaye gis ngeen tàggu na ko nee na ko nag ah, bekkoor bi jeex na banneex bi ñëw na jafe-jafe jeex na jokkoo ñëw na tàqalikoo deñ na gise gis gise ñëw na ah, meroo deñ na mbégte ñëw na bañante jóge na fi bëggante ñëw na noonoo jeex na jàppante ñëw na bekkoor jóge na fi waaye tamit naataange ñëw na mi ngi noonu daa génn rek dugg ci ci àll bi rek gis ngeen taw ba commencé wàcc kon jafe-jafey misra jeex na tàkk yonte yàlla yaqub ñibbisi na ci ak njabootam di ngeen gis nag incha allah danañ leen wax ginnaaw bi nga xam ni mooy daja bii ñaata at la yaqub war a def ak yusuf wala ndax yaqub dana fi dëkk bu génne àdduna ndax fi lañ koy denc wala ndax dafay delluwaat ca kanaan nan lay demee ak ñaata jamono la yusuf war a def fii ak yusuf bu génne àdduna ndax dañ koy bàyyi fii ci dëkk bi wala ndax dañ koy delloo fa ñu ne suul ay maamam ñu denc leen